fitina boobu jël kàddu di wax police di wax gendarmerie ah di di di wax ku ne ah, di wax sëriñ si di wax journaliste ba ñëw ci nag léegi li nga xam mooy suñu armée loolu nag sénégalais dañ ci war a wax en tout cas li nga xam ne am na solo ah, Farba moom du juge du magistrat la homme politique la ci wàllu candidature loolu mbir la moo xam ne ne on suivra ce que la justice loolu conseil constitutionnel li mu ci décidera mais avant ñu fay egsi quand même di être candidat ci moment yi nga xam ne waroo nekk candidat wala war nga nekk candidat am nga problème boo xam ne ne sénégalaise nga amal problème aji Sarr Adja aji Sarr laa koy waxee man léegi Adja aji Sarr waaw Adja aji Sarr nga am problème ak moom ndax yéene naa ko mu dem màkk bu ci yàlla àndee heure bu paree li muy dox noonu dinaa ko utal billet màkk xëy na mu dem mu dem aji quoi Adja Adji Sarr nga am problème ak Adja Adji Sarr léegi boo amee problème ak Adja Adji Sarr problème boobu jeexul parewul ah ci mbir boobu nag ñu pare ci élection nga jël kàddu au lieu ngay set mu da ngeen mus a dégg ci limite safee gémmiñ di wax yëpp di saaga mus naa jël kàddu tontu ci mbirum Adji Sarr ci opinion publique lu tax loolu yow neex nga lammiñ bari nga bëgg nga lu tax Adji Sarr bi lay tuumaaleel mënoo ci indi tuuti éclaircissement yéen journalistes yi tamit comme dafa chaque semaine chaque vingt jours dafay woote ay point de presse lu tax du ngeen ko ci interpeller yéen saa yi xanaa amu leen courage boobu loolu daf jaaxal dafa war a leer dafa war a leer nee leen ko Adja Adji Sarr yéen journaliste yi lay waxal Adja Adji Sarr li gars yi ni lay waxee doyooyu na ci tont tuuti même bu dee one minute ñu xam ne au moins amal na ko tontu comme dafa rëy Lamine ah dafa rëy Lamine di wax rek chaque seconde chaque weer chaque trois semaines di organiser ay point de presse nañ ci mus a wax mbirum mam ak Adja Adji Sarr avant sax muy dem justice ci wàllu politique mu tontu tuuti comme accusation la accusation boobu leeragul ñu aji la wala moom moo am dégg yéen journalistes yi dee leen ko ci tuuti interpellé bii baa bu leen wooyee point de presse ñu ngi xaar ngeen même bu ko waxul ngeen interpellé ko ndax mu indi ci tuuti leeral loolu dafa am solo trop waaw